gannaaw ba ñu jàppee Serigne Saliou Gueye di directeur de publication du quotidien Yoor-Yoor bureau exécutif bu SYNPICS di ci yey yàbbi moom syndicat bi ci ab bataaxal ba mu tabal di ci xam ni rek jaadu na ngir ñu jagleel leen ab liberté provisoire wala sax ñu takkal leen li di bracelet électronique Serigne Saliou Gueye juge bu deuxième cabinet d'instruction moo ko teg ab mandat de dépôt ci aljuma ji lañu koy toppee nag bokk na ci tas ay xibaar yu amul ki fonction ak yenn ci ay tuuma yu ñu teg ci ndoddam ba tey ci bataaxal bi seen pix di ñu leeral ni bëri na ci yenn cas yu demee nii dossier bi du daan yàgg ngir ñu na ñoom nag di ci prox ndoolu itam di ŋàññ kaawu Pape Ndiaye ñu jàpp ko ñaari weer ci ginnaaw di ab chroniqueur te Walf TV lam ca bëgg rek mooy di leeral ab mbiram baa sax ñu far ko bàyyi seen pix nag di ñaawlu anam yooyee ñuy jàppee ak di buntu xatal yenn ci ay journaliste moonte de ADPR àddu ci seen ay mbir balaa mu yegg ci loxo juge ndaxte journaliste bu nekk rek am nga droit fësal lii di sa liggéey Bamba Kassé nag ak ay ñoñam di sàkku ci doomu réew mi ngir ñuy mën di woyal wëyal démocratie teggi tuuma yi ñuy tekk ci ndodd journaliste yi ci bu ñuy def seeni liggéey syndicat bi nag dënk mbooleem journaliste yu nekk ci réew mi mu ngi woo taskatu xibaar yeeg technicien yu nekk ci média yi ñu maytu ak tënku ci code de la presse bi ñoom nag ñu ngi xamle ni képp yëngu ci média yi war nga mën a yor obligatoirement sa carte nationale de presse muy firndeel ni taskatu xibaar nga